weesoo Pharrell Williams on démarre euh, ak Kodou Diouf Colin Powell waaw <laughs> joyeux anniversaire à Kodou Diouf depuis Ouest Foire tout le bonheur du monde de la part de Hassan et toute la famille joyeux anniversaire à Madame Ba dite Koumbassi ça c'est de la part de Takoli de Richard Toll Joyeux anniversaire à Madame Diallo, dite euh, Tchalali, euh, de la part de sa petite sœur Takoli, Richard Toll. Joyeux anniversaire à mon jumeau Pape euh, je te souhaite tout le bonheur. Dundal Louberi de la part de Abdoulaye Sougou. Joyeux anniversaire à Khadinyan, longue vie et santé de la part de et toute la famille depuis Italie. joyeux anniversaire à ma maman adorée de la part de Mamito dundal mu yàgg lool. bon anniversaire à Mariba loo dund doyul c'est de la part de Domze. Domze. voilà joyeux anniversaire à Mamadou Laïsar qui fête ses 4 ans euh, de la part euh, euh, de sa maman Ngone Sarr et Ismaïla Sarr. joyeux anniversaire à Ndeye Yacine depuis Morocco. Casa euh, de la part de Bijou Ndiaye. Bijou Ndiaye. ak Ndeye Yacine Lo. ak Ndeye c'est de la part de. Bijou Ndiaye Mbodj. Modou Diop Modou bi nag. ah maa ko donc c'est de la part de Modou Diop bon anniversaire à Ndeye Yacine Lo joyeux anniversaire à Khady ma petite sœur love you. c'est de la part de. ma maman laa ah, d'accord ma maman Khady Ah, comme c'est. Ah oui, ah, je la connais, ça c'est notre tante. Oui. Ça c'est ma tante. Oui. Ça c'est ma tante Khadidjoum. Bon anniversaire. ça c'est ma ça c'est la kii sama sama sëru yaay la donc ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire de la part de maman Abi Dioum Abi Satou de la part de tous ses jarbaat de la part de Adja Fodé ak sëtëm de la part de bébé Adja Adja Kane tout le monde toute la famille daal voilà donc Khady Dioum on t'aime on te souhaite un bon anniversaire Euh, joyeux anniversaire à Ndeye Kati Bathily euh, Ndeye Kati Bathily euh, de la part de ses filles et toute sa famille c'est aussi de la part de El Hadj Muntaga bu télévision Futur Média moom sànq le ñëw pour souhaiter bon anniversaire ki nga xamante ni mooy Kati Bathily donc Kati Bathily ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire de la part de ses filles et de toute sa famille j'ai une petite petite surprise bi c'est pour nous parce que lii dañu ko fekkee woon te tey dañu ko bëgg a ma wax ma wax man dama ko fekkee woon. ñun fekkee nañ. c'est l'anniversaire de mariage de Bijou Sy. Eh, Bijou Doc. borom Doc. Eh. voilà. voilà Doc muy rus rus lu noonu. su ko yogoon daf ma naan ay yow bàyyi li ngay wax ci télé bi de bon ben elle va pas parler mais c'est moi qui vais parler parce que ñoom ñaar ñëpp euh, euh, dañu am euh, dañu am partie bu am solo ci sama xol que ce soit son mari Djibi beaucoup de gens dañuy wax ji duñu nuroo mais c'est mon frère nit ku baax la ñu dénk ko sama rakk ji bijou si c'est-à-dire moo ñu sagal parce que bu woon ak moom defe naa kenn du del kii nga xamante ni sama lakkal la mu sa nekk donc heureusement il est venu en sapeur pompier jëlal ma dama ko bëggoon kii mais heureusement mu jël ko donc on leur souhaite un bon anniversaire de mariage sëy bi sëy bi yàgg lool lool lool lool lool lool lool lool lool lool xobidaas et puis voilà màggetandoo quoi dem ba ngeen di waxante waa man mi lan laay def tay sama jàkkaar ji mu ne la xanaa rek la nga ma daan defal ca ba ñu koy mën je te jure tout ce voilà ça s'est passé un mois d'avril à Paris ok mën na d'avril. waaw ñëpp foogoon ni poisson d'avril. <laughs> alors que c'était vrai. te du woon poisson d'avril d'avril euh, plutôt euh, ben voilà Didi am nga anniversaire il est 11h pile il faut ñu tàggoo. am naa benn anniversaire Yama Touré Lo sama yaay sama xarit kooku euh, dama koy ñaanal une très longue vie auprès de monsieur Lo tonton Lo donc yal na leen yàlla sàmm defal la yow tam gudd fan ak wér bon anniversaire. Djibril Diop Thiès 10. 10 il fait 9 ans 9 ans dixième neuf ans. dixième waaw dixième la dëkk quartier dixième la dëkk. quartier dixième la dëkk d'accord. Djibril Diop Thiès. c'est vrai dixième la dëkk waaw dixième oui dixième neuf ans voilà c'est c'est mon ah petit frère ah c'est le fils à ma sœur. Ndeye Astou Ndiaye Ndeye Astou waaw effectivement qui est Thiès. xam nga ñëpp yow. Euh, joyeux anniversaire à Djibril Diop. Euh, c'est mon neveu. Mhm. c'est mon neveu. jarbaatu na na nanet la. waaye kii du bàyyi nanet. kenn xamul fan la yéen joyeux anniversaire à Djibril qui fête ses 9 depuis Thiès. Euh, longue vie santé de fer beaucoup de bonheur. voilà donc heureux. à Leïcha Diop. Mm-hmm. Euh, démb la woon ah, Leïcha borom yande ko du borom léb bi. borom léb neex bi. Euh, et on t'embrasse. te xaar yàlla na anniversaire bi tombé mu génnee premier single. waaw commencé na cover yi. ñi ngi ñi ngi jàll te c'est c'est bien. voilà bisous les chats moom suñu la et puis elle est adorable.